Les journées de samedi et dimanche, dès les premières heures de la matinée, les plages sont prises d'assaut par les usagers. Une ruée qui va se répéter tous les jours durant la saison estivale jusqu'à devenir un rituel. Dans l'après-midi, c'est la bousculade sur toutes les plages qui s'étendent sur plusieurs kilomètres entre Besseyao, Yoff et Ngor. De véritables espaces et lieux de rafraîchissement naturel à la disposition des populations. Elles ne peuvent compter en dernier ressort que sur leurs propres moyens pour faire face à la canicule. Ces plages offrent aussi aux estivants la possibilité d'échapper, ne serait-ce qu'une journée, aux pressions quelquefois stressantes de la ville et de leur travail, de se sentir en plein air et de se réconcilier avec la mer. dëkk bu tàng lool ñu ñëw jàkkaarloo géej gi rek di changer mu nga fii moom boo dikkee sax am sax boo dee boo amaloon bor nit fanweeri junni boo jàkkaarloo géej gi da nga koy fàtte fi mu toll nii fàtte woon naa samay bor bu yàgg. waaw stress bu munti am sama àdduna bu saa autant que ma sangu sax lépp La plage de Malibu de Guédiawaye refuse du monde. Très animé, le rond-point d'à côté dégage une ambiance carnavalesque. adultes, hommes et femmes, continuent d'arriver sur les lieux. À quelques mètres de la mer, l'adrénaline monte chez les plus petits qui traversent imprudemment le seul obstacle qui les sépare de la berge. Cet endroit ne fait pas partie des à la baignade par les autorités, malgré la présence notée de quelques sapeurs-pompiers. Dans ce contexte des grandes vacances, les enfants bravent comme si de rien n'était la furie des vagues. Âgé seulement de 17 ans, ce de sortir de l'eau. bu ñëwee dañuy sangu après ñibbi xam nga def fu ñuy romb fu ñu fu ñu fu ñu lii tere ñu bàyyi ko di sangu si tefes bi nii pour bi daal. soo dégloo gars lu ñu la wax rek doo lab daal. mais soo soo soo dégluwul comme ànd ak sa xalaatu bopp daal wóorul daal. mise à l'écart avec ses amis cette jeune demoiselle vêtue d'une robe de plage attire le regard elle est bien au parfum de l'interdiction de baignade dont ce lieu fait l'objet. kër dañ dañu tàng trop mun nga bañ a gis air original daal mun nga ñëw fii di gis air pur loolu moo tax. mun nga ñëw toog dax stress xam nga le temps ngay toog kër ga mun nga génn soulager wu feexal sa xol. et tout loolu moo tax ma ñëw fi. ñu gis la ñëw nga waaye yaa ngi mettre à l'écart damoo sangu dafa mel ni yow brise moo la gënal. si si moo ma gënal le temps may dem dugg ci ndox bi mun naa toog fii ma jël air loolu moo ma gënal. Poursuivant notre périple, le cap a été mis vers la plage dite tolérée de Besseyao à Yoff. Deux camps ont investi les lieux juste par recherche de plaisir, de détente ou de loisir. parfois ma ñëw pour training parfois ma ñëw pour passer du temps dimanche moom li si ëpp damay ñëw pour juste pour passer du temps prendre l'air parfois aussi nii non yeneen bu ma ñëwee su ma entraîné ba pare football nii ba pare laay doog a ñëw sangu nii doog Cette mère de famille profite bien de ces moments. Elle dit venir à la plage avec son enfant, mais aussi avec sa famille, pour changer de l'air en cette période de forte canicule. kër ga dafa xaaral <laughs> xaaral ma indi njaboot bi ñu passé temps fii nii weekend bi ak yooyu noonu parce que weekend chaque jour damay liggéey tey rek laa mën a am temps pour passer ak samay njaboot. neexoon na trop tamit. C'est le cas aussi de cette mère de famille. Elle profite bien de son repos dominical et apprécie ses moments en famille. xam nga rek été lañ wax waaw moo tax ñu ñëwoon féexal xol bi daje en famille. comme dimanche bi liggée moo tax fi la Après quelques minutes de marche dans cet espace sablonneux, nous sommes tombés sur ce groupe de jeunes venus profiter de la clémence de cet endroit. On est ici dans, la plage euh, uniquement pour changer d'air quoi. waaw ah, ñun Sénégalais ñoo bëgg place xam nga ñun dañoo bëgg ndox. Euh, le travail c'est c'est dur quoi c'est très dur même euh, moi je, je, je suis un maçon manœuvre chaque vacances je vais je vais quoi mais le dimanche. euh, il faut que je me soulage quoi. Ce lieu propice à la détente et à la promenade est aussi l'endroit idéal pour trouver de l'inspiration. préféré di ñëw ci place bi pour euh, ñëw euh, doxantuwaale ñëwaat liggéey rabaat bi yuuxu affaire yooyu noonu. waaw loolu dañu koy dugal parce que suñ suñu staff yi dañuy forcer pour ñuy ñëw di liggéey parce que day gën a tax nga am ouverture sur musique bi. artiste boo fi gis rek jàppal ni dafa ñëw pour yokk inspiration en quelque sorte. ah parce que tamit heure heure boo boo ñëwee ci place bi di nga loo xam te ni ah, lu bees ko dund chaque a wax chaque jour. par contre à Ngor c'est une plage où la baignade est autorisée mais ce n'est pas le rush ce qui contraste avec les plages de Bessayawou et Malibou à la baignade interdite. Depuis son poste, Doudou Gueye, maître nageur, veille au grain. Il supervise la baignade et prêt à intervenir en cas de besoin. Pendant les six premiers mois de l'année 2023, le Sénégal a enregistré 71 décès par noyade dans ses plages. Il s'agit d'un bilan catastrophique pour l'Association nationale des maîtres nageurs. la tendance est baissière car pas moins de de décès par noyade ont été répertoriés en 2022. ñun moom euh, en tant que surveillant de baignade en tant que maître nageur bu ñu sañoon du ñu am benn cas at bi yëpp du jàmm ak payam yàlla ak dogalam yàlla def na peut-être dispositif bi am na yi plage yi malgré que nag des na parce que plage bu nekk nag soxlaa na soxlaa na dispositif bu ëpp bi mu am ak matériel lu ëpp lu mu am parce que fréquentation bi moo bari léegi par rapport ak bu jëkk léegi ñii dañuy fréquenter bu baax plage bi en plus léegi fréquentation bi day durer day gën a yàgg ay cinq 6 7 mois pratiquement toute l'année moo tax ce qui ne euh, c'est pas évident mu bañ am cadre noyade mais bu ma daaw am na différence bu rëy na nga daaw peut ñu ngi doon ñu ngi ay trois cent bu ñu ngi naan moins de cent wala peut am na benn progrès bu si am. Il revient sur quelques facteurs favorisants de ces noyades et exhorte les autorités à intensifier la surveillance des plages. ñun à partir de 19 heures dañuy wàcc bu ñuy dañuy siffler bu ñu siffler ñëpp génn léegi nag bu ñëpp génnee am na ñeneen ñuy ñëw nag di plage Euh, ñun fii la plupart loolu mooy indi sax suñu cas de noyade après heure de baignade bi mën nañ ñëw si plage yi mais guddi gi warul am baignade. ñun li gën a gàllankoor suñu liggéey mooy euh, faux maîtres nageurs yi ñëw ñuy fréquenter plage bi dañuy ñëw ne ñoom ay maîtres nageurs lañ ba ñëwee ñu la kaay ma jàngal la fay wala kaay ma sàngal la te si loolu dafa am ay pédophile am na ñoo xamante ne ngay violé façon bu nekk daf si am moo tax ñu si interpellé communes yi ville de Dakar ak état bi en pour ñu gën a renforcer sécurité bi pas baignade bi rek. mais usage euh, fréquentation plage bi plage bi yëpp am euh, poste poste de police boo xamante ne ñun net nageurs yi bu ñu soxlaawee rek dañuy dem si ñoom malgré que am na nag euh, yoo xamante ne ñoo ñu seconde ñoom ñoo ñu jàppale lu bare bare si liggéey alors que les lieux de baignade accessibles reculent face à la privatisation du littoral les Dakarois se ruent vers les dangereuses plages de la Grande Côte quitte à risquer leur vie Et pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, la noyade est la troisième cause de décès par traumatisme non intentionnel dans le monde et représente 7% de l'ensemble des décès par traumatisme.